الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم barke borom Touba barke soxna jaara mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu nuyu bu gën a tedd ci nuyoo yi gën ngaa rafeti nuyoo muy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waaye ñu ngi jiital ci nuyoo bi sunu yaakaar tey ak ëllëg ki fi toogal Serigne Touba Xaadimu Rasuul muy Serigne Mountakha Bachir ñu ngi koy ñaanal Mbàkke Bàlla mu yàgg fi loolu te ànd ak wér waaye nag di ko ñaanal tamit nag ki fi toogal Serigne ki fi toogal nag Ibra Fall Lamp Babul Mouridine muy sëriñ Amdi Moustapha Fall ñu ngi koy ñaanal Fall yaaram mu yàgg fi loolu te ànd ak waaye nag di dugg ci bépp këru diine Tiijaan Xaadar Laayeen ba ci ñaseen ñu ngi ñaanal xalif généraux yi fa nekk ñu yàgg fi loolu te ànd ak waaye di leen nuyu te di leen ziyaar di wax nag inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ba kenn ñam dund dina ñam dee ci yàlla la ñu jugee waaye it nag ci yàlla la ñuy dellu ñu ngi ñaana nag ñi nga xam ne ñoo ñu jiitu ci këru dëgg yi yàlla na sunu borom yërëm leen te xaree leen ci àjjana yu gën a kawe di ñaanal ñi nga xamante ne njàqare ak tiis dafa dal seen kaw moo xam caabi da leen féetee ginnaaw ndax foofee nag ku ñu tooñ a ngi fa waaye nag ku tooñit mi ngi fa waaye ak bu mu ci munti doon rek ñu ngi leen di ñaanal suñu borom yal na leen teggil bi di ñaanal ñi nekk ci hôpital yi tawat loolu leen di ñaanal yal na suñu borom fëgg seen bopp ndax it nag wér lu ko waaye jëndee jar na ko ndax it nag wér moom mooy lépp waaye nag comme ni ñu ko waxee woon nag seen émission siraatu saalixaat day ànd yéen nag ci thème yu am solo ànd ak yéen ci ay jigéenu royukaay waaye nag ànd ak yéen nag ci ay borom xam-xam yu kawe kawe moo tax nag may dalal di tatagal di ziar sama ñaari sang yu tedd yi nga xamante ne ni ñoo ñëw jëmmal ëttu siraatu saalixaat bi kon bu ko defee sëñ Malaka ñu daal di fas yéene rek euh, daal di dalal oustaz Aliou Kandji nga xam ne boroom xam-xam bu rafet la doon euh, jëmm ju baax xam a màcc nag lu si fikk ñu koy ziar bu baax di ko màggal di la wax ne oustaz nag ahlan wa sahlan dalal ak jàmm ci 24 TV. alim min rajim rahim أعوذ بالله ككرمه وسلطانه الخضيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي العظيم الحمد لله نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وخلفائه ومن نهج نهجهم واصطند بسنته واقتدى به وبهم بإحسان إلى يوم الدين مبوكي جلدي مبوكي مريد من كاتي في نيغي لين دي نويو السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته تبارك الله دي نويو سيدا رقيا مي ما جاكارلوك نيغي نويو باخ ديكو زيار دا فا ملني كور غي سونو لوغوكو نخ ني مخو غيسيني اك ني مي واخي دا فا mu meloon ni ñu sant Cissé wala ñu sant Ndiaye moom dina xaw a yëg koor gi daal. tabaarakallaahu ñu ngi koy ndokkale bu baax macha allah di nuyu sëñ Mala mi ma jàkkaarloog. Mm-hmm. moom daal wax naa ko ne ko maa ngi sàkk ndax baatam malaaka mi moom baat bu rag lu la ndax ñoom tabaarakallaa mission yi leen yàlla di ci moom dafa nekk mission yu xaw a doy waar lool. moo tax su ma dee dund ci suuf gis ko tudd turoo dafa may xaw a jaaxal xam naa ne bu fi jógee danañ jéem a ànd ak dem ci mairie xam danañ danañ supprimer dernier mot bi. malaaka mi ñu ko tabarakallah di nuyu wa régie di nuyu wa technique techniciens yi ñep tabarakallah say da roq ya loolu daal moo doon nuyu bi ci gàttal insha allah ok jërëjëf oustaz ñi ngi lay sant bu baaxa baax ci ni ñu ñoo rafalee ñew bi nga ñëw fii jërëjëf bu ko defee dal ma daari jox nak sama xarit sama sang sama wëlëre bu yag nak ndaysan sëñ Malaka ma ngi lay dalal bu baax dila bay nga nuyu nuyoo ak téléspectateur yi jërëjëf soxna Roqeya ma ngi lay fay nuyu di nuyu mbollem ku jàkkaarloog ñun di ñu sétane ci télé bi di Mouride 24 di siyaar eh, yaa oustaz bi ma jàkkaar lool xam naa moom tàmbali na defante bi te mel na ñu fi commencé gut <laughs> maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaara di ko wax ahlan wa sahlan mhm. ndax yow moom sa gan rek sama gan la mhm. kon bu fi jógee bu ñëwee fii ci émission bu am solo bi di siiratu saalihaat mhm. damay jàpp ne ñun ñëpp la ñëwal ndax sama diggante yow ni nga ko waxee ci njëlbeen gi rek. lu mm-hmm. yàgg la. yàlla dogal muy rafet. Mm-hmm. ñuy ñaan nag rafet googu muy continuer bu faaw rek. amiin amiin amiin. noonu la ñuy ziyaara Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké ñaan yàlla mu yàgg fi loolu te wér ba naal yi mu naalal sëriñ bi. Mm-hmm. mu àggale ko te ñu ànd ko moom. di nuyu ak a ziyaara sëriñ Hamdi Modou Mbend Fall. xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall. di ñaan yàlla mu yàgg fi loolu te wér. di nuyu itam sunu wayjur bu jigéen soxna Ami Sayer Mbacke. di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér. amiin amiin ngi seetaan daal fépp fu ab julli nekk diñu diñu diñu diñu maa ngi nuyu fépp fu ab julli nekk diñu seetaan. Mm-hmm. à travers di Mouride 24. Mm-hmm. kon soxna Roqe kàddu yu nuyoo yaa ngi doon jërëjëf. kay jërëjëf sëñ Maraka jërëjëf oustaz ñu ngi leen di bu baax baax di rafetlu bu baax kay seen teewaay fii nii. kon su ko defee mbokk yi. dem na kën ñu buum sa boy boy ba. ñu leen ko waxee seen émission siraatu saalihaat day fas yéene fàttalante ak yéen laabirante soññonte ak sunu mbokk soxna yi tey nag ñu indi leen thème bu am solo ngir nag fàttali kan mooy jigéen fan la jigéen jóge démb ba tey jii ak cër bi nga xamante ne sunu bërëm jox nañu ko yëkkati gi mu ñu yëkkati kawe gi mu kawe ñu war koo xam nag bu ko defee nag kon thème mu tey bi daal day ñëw ci jigéenu démb ak jigéenu tey kon su ko defee oustaz ñu daal di dugg rek ci point bu njëkk bi maanaam dañoo bëgg a xam nga leeral leeraluñu lan moo nekkoon taxawaayu jigéen bu njëkk balaa islam bi di tàbbi waaw ndax ndax nag nit mbir boo koy tàmbali danga koy tàmbali ca commencement ba fa mbir ba tàmbalee ñu tàmbalee foofu nag daal di wàcc parce que jigéen nag foo nga xamal ko fan fan faw ñu xamal ñu fan lañ jóge ba tey jii nii ni ñu mel kon bisimilah. macha allah sayda raqiya urdul ashiyaha ila usuliha ndax mbir mi léeg-léeg pour nga xam li ci xew dëgg dafay laaj nga delloo ci cosaan ya waaye tabaarakallaahu bala ñuy départ gannaaw bi ñu sante yàlla julli ci sang-sang yi Seydina Muhammadin ñi ngi ñaanal julli di weeru koor yu nekk yàlla mu ne suñ mujj koor yàlla ñu ko fekkee déwén te romb ko yàlla nangul ñu xiyaamana wa siyaamana bi jaayi Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam lépp lu ci yàlla digle ci yiw mu ci digle ci teraanga yàlla nañu ko yàlla defal ndax weeru yiw la weeru xéewal la weeru la fa tabaarakallaahu ku yàlla dogal nga dund ba dajeeg moom góorgóorlu ca la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon benn xadis benn journée ida maratum bi riyaadil janna fartaaw su ngeen rombee dër yi nga xam ne ngi bokk dëri aljanna na ngeen profité occasion wu ci euh, weer wi ñu toll dafa bokk ci weer yooyu la bokk ci weeru promotion mhm. bokk ci weer yi nga xam tabaarakallaahu jullit bu ko fekke war na caa góorgóorlu kem kàttanam jullit bu ko fekke war na caa def lu mu man mhm. ngir balaa weer wi de jàll lam amoon ci tilim tilim yàlla roccal ko ko ci yàlla nañu ko yàlla defal defal leen ko defal ko bépp jullit bi jaay seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallama tabaarakallaahu sayda roqi da nga laaj mhm. laaj bu am mhm. jigéen mhm. fan la nekkoon avant l'islam ndax euh, loolu dana dimbalee jigéenu tey ñi xam fu ñu jógee woon démb ak fi leen lislaam def fan la roqi jigéen bu njëkkaan dafa nekkoon ci difficulté yu métti métti métti métti bu ñu ko bëggoon a xaaj dangay xool ñi nga xam ay chiffres lañu ñoom lu ñu considéré woon jigéen mooy lu ñu leen jàppe woon ci seen bi ñu ñëwee nu fa jigéen meloon mhm. grec yoonaan yi bi ñu dikkee nu fa jigéen meloon yooyu boo ko tënkee rek daanaka da nga tënk lu baree baree bari kenn ku ci nekk di nga xam nu mel mhm. euh, sëñ Mala chiffres bu njëkk dañoo jàppe woon jigéen comme jëfandikukaay mhm. muy terme boo xamante ni terme bu doy waar la. maanaam jigéen bu nekkee seen biir dañ koy jàpp ne matériel la bu ñu war a utiliser. ci luñ bëgg nag. Mm. ak loolu lu mu mën doon rek dañ koy jël utiliser ko. Mm-hmm. ci sans autant que moom mu d' ci wala mu ñàkk cee d' mm-hmm. maanaam moom amul lu muy bañ wala lu muy nangu. moom daal il am nga soxla ci moom da jël jëfandikoo. Mm-hmm. noonu la ko suivi jàppee noonu lañ daan doxalee ak moom it. amul benn xaq ba day doxul de penc mi dañ fay nas dara laaj ko xalaatam mm-hmm. doxul dafay suwaa ki mu war a nekkal kan la bu bëggee boroom kër ku war a mm-hmm. nekkal kan la mm-hmm. daanaan daal dund ko dund ko xam dund ku mën sa morom duma la woon noonu it la ko gerek jàppe woon yow naan noonu la jàppe woon jigéen ñoom ni ko jàppe woon sax moo gën a doy waar ñoom dañu ko jàppe woon comme danas maanaam mbir moo xam dafa salte wala dafa bon ba dañ ko war a moytandiku malheureusement bu ñu nekkee ak ñoom duñ leen jege dañ leen di sori. dëgg leen di écarter. Mhm. bi ci gën a doy waar mooy aada bi jigéen di gis far weer wu ne. ci mhm. tollee ci période bi mu ko war a gisee. Mhm. bu ko daan def dañ koy génne kër génne ko bu ko ci àll ba. parce que dañu jàpp kii euh, bokkul ci ñi war a defar société. jàpp nañ ne kii bokkul ci ñi nga xam société bi am nañ soxla ci moom. finalement dañ koy mujj sànni ko. yóbbu ko feneen. monde arab sax sipp jasirul arab ñu xaw a tane tuuti. ñoom bi jigéen di dikkee jàpp nañu mbindaafun la mais mi dafa la amul benn droit. Mm. ñoom noonu lañu ko jàppee woon. ba ndeysaan buñ day nekk ak moom sax euh, duñ ko tànn ci dara. Mm-hmm. ku ci bëgg soxna. Mm-hmm. benn ci juróom yi nga koy jëlee. Mm-hmm. benn nga dem ci marché ba jënd ko. mais xam nga koo xam gënuloo ko yéen bokk fi ngeen juddoo. nga dem jënd ko. en tant que doomu nga dem jënd ko ñëw def ko soxna ci tur. mais bu ñu demee ci jëf lan jaam lay doon. parce que àq yi soxna di am diggante ak borom këram bu ci am dara. noonu ngay mujj dundee ak moom. maa ngi fàttaliku benn histoire bu doy waar. bu ma sëñ Maala maye ma nettali ko pour nga xam jigéen dëgg-dëgg fu mu jógee woon. dafa am benn femme bu ñuy wax say boobu. Mhm. moo jur sabibat ak antrata mushaddat. Mhm. antrata ñi jàng euh, loxo ñëpp xam nañu ko. Mhm. soxarawal jaay lii ñëw na ca. di borom xam bu mag. téere la boo xam mag yu Sénégal yi fonk nañu ko bëgg nañu ko dañ koy jàng. ndax téere loxo la boo xam dana dimbale taalibe yi ci côté bu ne. tabaarakallaahu say boobu moomu. nekkoon ak ay waajuram. ñu koy traité traité bu doy waar. yalla dogal ben jour rek wajur yu genn ko keur ga ne ko ndax dal da ngay dem di sey kenen te doo ma tàggu mm-hmm. lu doy war manam fab jigen ba su waré and ak nit ya koy jox ndigal ne ko demal sey ak jiw te yow koku muna nek sa mo lolou mu nek sa soxna ya koy jël ne ko jox naa la sëñ ma la mm-hmm. àndal ak moom amutoon ben geud ci ñaawaay tamit danañ dem ba leg leg nga gis ne sax yow deug la par exemple man duma noble mais amna soxna mm-hmm. seigne mala mi noble la day mu sama soxna jox ko ngir ma am ci wam dom xam nga lolou loolu loolu lu doy waar la loolu kenn mus ko dégg sey boobu moom yàlla dogal nag bi mu defee noonu waajuram génn ko kër gi yóbbu ko ci àll ba tax koo di fa dóor fi mu koy dóor noonu rek yàlla dogal entre kilifa la bóor la mu jaar fa dajeeg moom mu di ko dóor dóor yu métti bi koy dóor ci la ko jàpp ne ko lu xew mu ne kii dafay génn ci sama ndigal def nangam tuumaal ko njaalo tuumaal ko nangam kooku ne ko léegi xam nga lu xew bàyyi ma jënd ko mu ne ko du ma la ko jaay dama la koy may jëlal ko ndeysaan lu toll ni Touba ak jëlee ko fii Dakar yóbbu ko lépp Touba wala lu ko gën a sori fekk Tamba yóbbu fa ndaw sa ndeysaan li tax jigéen boobu jamono sonnoon dëgg bi góor gi demee dafa laaj bëkk néegam yëpp ne leen ku ci bëgg ndaw si ma may la ko ñoom ñëpp ñu bañ kenn ku ci nekk ne bëgguma moom ci boppam moo ko jëlal mu takk ko mais yàlla ko bëree ko doy waar la gis nga bi yàlla dogalee kilifa gi takk ndaw si xam nga nu yàlla def la manqué woon ci yooyu jamono daf koo def ci doomi ndaw si dañoo jur doom mooy entretien shaddaat ku mën a bind point mën a way bu jafe ca joo jamono amuloon yàlla génne ko ci doomi jaam bi koo xam faaris nga woon nga xam ne xeexkat nga woon jàmbaar nga amul ci jooju jamono yàlla génne ko ci doomi doomi ndaw ñu xeeboon moo tax boo toppee xam-xam danay wax ne xadd kuntu fi ma mada ara jimaaluhum wala yow ma ahmi imam kulla ma naka boo mu ne dañ ma xeeboon ba bu njëkkaan dañ ma joxoon ay gileem ak ay nangam di ma sàmm xeeb samay waajur waaye bis ni tey yàlla dogal na kaaraange dëkk bi sama loxo lañ ko teg kon jigéen bu njëkkaan dañ ko ñàkkaloon fayda dañ ko doyadaloon dañ ko suufeeloon la jigéen doon dund bu njëkkaan Mm-hmm. jël dëgg la kon nga gis njëkk na jigéen meloon. Mm-hmm. amul woon gëdd. Mm-hmm. amul woon valeur. amul woon àq amul woon yeleel. lu doy waaye xanaa damay jox rek. waaw euh, malaaka. malaaka daa mel tey koor gi danaa jàpp de. déedéet. <laughs> Euh, malaaka. dañu taataan rek. nga li li li oustaz Kandji andi. loolu euh. lu triste loolu. lu metti loolu waaye. waaye nag yow lan nga ci andi rek lan mooy sa xalaat lan nga ci andi. jërëjëf jërëjëf soxna Roqee jërëjëf yow Saas ci leeral bu am solo boobu xam naa jigéen ñi moom émission bi day mel ne war nañ cee bàyyi xel baax a baax ndax xam naa bu ñu fi jógee moom dinañ xam fi ñu jógee ak fi fi fi ñu toll tey ndax comme xam nga jikko yu mu fi wax yëpp ñu xañoon ko jigéen bu njëkk daanaka bu doon loolu mooy wéy ba tey kon jigéen mën nañ ne du représenté dara ci société bi ndax bu njëkk ba bala ñuy wax jigéen mhm. maanaa day fekk mu judd ba noppi waaw mhm. ah, bala ñuy wax jigéen day fekk ndax ku mas a am ku mas a am doom muy jigéen mhm. alxuraan wax nañu ne bu ñu ne diw yeweeku na rek boo fa xëyee dem di nga xam li mu am ci xar kanam way juróom xar kanam bu ñagas lool gàccawu lool kersawu lool ba àgg ci mel na daa ñàkk sax maanaam ku sori ci moom te fekk ne loola dara waralu ko lu dul soxnaam si nga xam ne daf ko andil doom muy jigéen mm-hmm. moom lañu alxuraan di jàngal wa isa bushira ahaduhum bil unsa dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib mm-hmm. nga xam ne ñoom mm-hmm. bu fu doom ju jigéen mësaa gane jamono ci seen ci ca yooyee jamono rek day feeñ ci seen xarkanam kanam ngir bañ giñ ko bañ waaye duñ yem ci xarkanam bu mel noonu rek duñ ca yem de day ñagas lool waaye nee na bisub keroog penc ma sax bu ñu fa waroon dem duñ fa dem waaw ngir làqatu wala ñu génn dëkk bi maanaam dem ci àll bi bu ñu nee ba xam ne loolu nag du solution nee na dañuy retourner ci kër gi bu ñu ñëwee nag ñaari ñaari solution lañ def benn ñu koy gas suul wala ñu ray ko yatawaara min alxawmi min suin ma busira bihi ay yumsiku ala hunin am yadussuhu fi turab ala saa ma kon day mel ne loolu ñaawoon na lool cib dégg te mm-hmm. daw na yaram lool lool lool mm-hmm. kon ni ñu ciy dégg mooy lislaam fekkoon na fi ñuy gas ay doomu jigéen di leen suul mm-hmm. fekkoon na fi itam ñuy gas ay rakk yu jigéen di leen di leen suul ne ko yaa oustaz waxee léegi ci biir kàddoom jigéen daawul doon dara waaye da da jigéen da daan bokk ci li ñuy dond moom dañ ko daan doon daale <laughs> waaw moom da daan bokk ci ci ci ci ci ci matériel bi ñu doon moom da ci daan bokk. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. waaye itam moom ci boppam sax ni ñu ko daan donde masalan mm-hmm. eh, bu doon misaal rakka wala mag. sa mag wala sa dafay bàyyi ko bàyyi fi soxna yow da ngay doon soxna sa par force. koy doon par loolu itam alxuraan na leen ko teggi yaa ayuha alladina amanu laa yaxillu lakum an tarisu nisa karha kon day mel ni saabu lislaam ñëwee bu leen teggilee dara rek day indi dara teg ca wet ga waaw bu leen bu ñu leen de jàppeeti nangam day jàngale ni ñu leen war a jàppee loolu lu mat a xam la lu mat a lu ma a lu mat a bàyyi xel la kon noonu la ko yàlla tere wax ne li tàmbalee tey jii moom aaya bu wàcc ba àddina di tukki bu kenn jëlati jigéen di ko dond donte nag dañ koy tuddee dond ba tey waaye nañ ko waxtaanee dañ ko waxtaanee kon eh, day mel ne lislaam moom daa ñëw rek ñu doog a reconnaître jigéen sens bi mu am solo si mu am wàccuwaay bi mu am ci société bi jàngal nit ñi nan lañu war a jëflante ak ñoom kon loolu day cër boo xamante ni nii yaakaar naa xaw ma kuy wax lislaam dara moom waaye jigéen moom waru cee bokk fa mu ko fekk su ko fa bawoon kon yaa oustaz jigéen du daal dara dara dara waxantuma la société bi ci nekk soxna Roqe nga andi yow it lu am solo. Mm-hmm. te it nag lu triste ndax. Mm-hmm. man sama xol sax soo fa ñu nekkoon na suufee. Mm-hmm. du doon loo xamante ne lu yéeme la. Hmm. ndax li nga wax léegi ne jigéen moom daanul doon te kenn du ko doon. Hmm. daa bokkoon ca alal ja nga xamante moom la ñuy doon. ñu hmm. ëlbatiku jàppee ko ni ab aal. maanaam jumtukaay boo xamante ne boo ko soxlawee. da ngay ñëw jël jëfandikoo. soo paree daal di ñuy delloo. alaahu akbar ñi ñoo ñaaw ñi àtte woo. loolu lu metti nga gis ni jigéen suufe woon na lool sax. maanaam. doonoon na loo xamante ne lu lu doy waar la ndax suñu borom sax mi ngi wax ni que jigéen ñooñu noonu ana lan lañ def hmm. ban bàkkaar lañ def hmm. ba ñu leen i daan jël di leen gas di leen suur hmm. ndax aaya bi andi na ko wa isal mawudatu subilat bi aysan bi kuti la doon loo xamante ne lu yéeme la kon sëñ Malaka daal di wax nit nag mm-hmm. islam bu mu ñëwee mm-hmm. moom moo jox jigéen gëdd mm-hmm. jox jigéen valeur am jox jigéen doyam yëkkati ko nag ba mu kawee ba du laal suuf suturaal ko mun nañ ne làkk ko ca rox wax ko la mu war a def ak lan mooy taxawaayam ngir mu mucc ngir foofu mu nekkoon démb mu bañ faa nekkaat tey kon may ma lay laaj euh, ustaas ana lan mooy doon taxawaay jigéen ci islam gannaaw ba islam ñëwee délibéré jigéen. Mhm. maanaam génne ci mbuumu jaam boobu mu nekk. ba ko mhm. islam daj mhm. kon léegi jigéen lan la ko islam sant. taxawaay bi nga xam ne moom la war a taxawee. ba dina mucc. ci yooyee noonu nga xam ne moom lañ ko daan def. tabaarakallaahu sayda xam la dugg loolu sax euh, sëñ Mala dafa wax aaya ju doy waar yoo xam ne da ma doon baal rek ma laalaat ci tuuti ndax dafa laal bu am solo boo xamante ni. Euh, buñ ci xuusee danañu dimbale lañ jëm ca kanam mu gën a leer sañ sëñ Mala alxuraan daf ko nettalee nettali bu doy waar wa isha bushira ahadum bil untha ñun yàlla bu ñu bégalee nit kon xam nga lim la jox mbégte la dëgg la ndax feel bi dañ ko ràkkabal yow mi jàng grammaire dëgg la dañ ko du am faayil naay bu faayil lay am mm-hmm, feel bu ñu ko ràkkabalee maanaam feel boo xam dafa war am sujet ak verbe mm-hmm. dañuy dindi sujet ba maanaam dañoo indi naay bu faayil doori ko isha ndem ya ñun yàlla bigel nañu mais li am solo moy ki la yàlla jox ba pare tuddé ko non mbégte la la jox. fofu sax fofu sax oustaz dëgguma la xam nga bu yàlla waxé non kon mel na ne am na ño xamné yitté yittewoo nañ ko te yàlla jox leen. jërëjëf wallahi ndeysaan muy lu am solo wallahi wallahi muy wax jam solo am na ñu ko yittewoo lool. te mu ngi ko am bu ci dara rek am na kum ko xañ. wallahi yàlla xamna ko yàlla nak ne man. wallahi yàlla xamna na ko wallaahi yàlla gis nga yàlla ma waxoon ca gannaaw rek. allah yahlam man qalaqahu wa latif alxabir yéen xamu leen man yàlla ma xam loolu rek mooy li saxaat mhm. kon su la yàlla joxee benn mbégte mhm. jàppee ko ci boppam muy bonheur bu mu la jox mhm. yow mi koy recevoir nga recevoir ko naqar xam nga loolu lu doy waar la non seulement loolu mais boo ko recevoir mu nekk ak yow nga jàppee ko naqar ni ngay dundee moom day doy waar ni sëñ ma la wax ne dootuloo am xaq mais yow da ngay mujj boole comme matériel ñi lay doon dëgg la noonu lañ laa def ba pare xañ say xaq yëpp nga nekk di dund yow soit ñu gas la suul wala boog ñi dee torturé ba nga soo rëccee ci loolu taxul nga soo juddoo di jigéen gasuñu la suul newu la di la def ay xoxtal ba nga faatu màgg nga taxul nga mucc xam nga lu ñuy def dañ la bala ngay dugg ci néegu ji jëkkër amuloo xaq booy laaj comme li lislaam def naa la canee ko moo ko moom nangam amu ci benn kay da ngay ñëw ñu jënd la nga dem nekk jabar su loolu amul ñu dindi la jàpp la comme jaam mooy nit ki moo la tane rek jàpp la jaam ci yu kenn xamul mm-hmm. jël la jël la ngay soxnaam wala boog mu sëy la sëy boo xamante ni amuloo ci benn accord mm-hmm. yow daal dañ ñu sëy nga dem nga dem sëy moo tax ndeysaan lu doy waar xew na ci diggante Seydina Umar Xattaab ku baax la mu ngi bokk ci saxaaba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi mu duggee dugg ci lislaam Yunus sallallahu alayhi wasallam tappal na ko garaat yu rëy waxoon na ko alxaqu maa Omar ay sukaan wax ci wax ju rëy rëy Seydina Omar amoon na dem benn doom bu jigéen ndeysaan yàlla dogal nag comme aaday arab la nag jamono jaahiliya pour ñoom ku am doom bu jigéen gàcce nga am Seydina Omar nag jàpp na ci gàcce la nekk parce que ku toll ni Omar am doom bu jigéen yàlla dogal nag doom jaaxal ko trop benn jour rek mu xëy na ko defarul nga nuy ji sa maam dëkk sàngam ndeysaan téere bu ñu koy nettali sa yaram day daw te daa roqee xale bi léttu fuddanu mm. musuru def li mu war def lépp mm. waaw kolam kolam yu baax yàlla xam na ko mm. Seydina Omar génn nag moom ndeke génn na avant bu suba lañu war a dem ci suba xëy na dem gas kàmb gu xóot xale bi defaru kontaan lool jàpp na day ji ay maam wala day joy ji ay mbokkam xam nga ñaaree xale buy tukki dafay kontaan ci tukki mi parce que dafa war a découvrir lu musul gis yàkkamti googu moo ko jël mbégte ba léeg-léeg sax sëñ Mala ñoom xam naa bu ñu ko jëkk def guddi gi duñ nelaw waaw ah, dañ naan suba damay tukki guddi gi <laughs> guddi gi doo guddi gi doo nelaw parce que dañ naan suba damay tukki xale bi ndey ndeysaan wallaay yàlla xam ne ko wallaay yàlla xam nga xam ne mosoo génn fekk de yaa ngi tooñ de <laughs> ndongo daara yi lay seetaan dinañ la wax dara de <laughs> waaw xam nga ndongo eh, daara baal leen ko rek ndax yaa oustaz bi nekk waaw dañ ko baal ndax man ci daara ji laa bokk ci daara ji lañ bokk mu ngoog tabaarakallaa ñun ay taalibe lañu tabaarakallaa ñu ngi jaar ci yëpp mm. ndeysaan xale bi kontaan lool ci tukki ñu war tukki suba. Mhm. Seydina Omar mu fas ci xolam bu génnee ba génn dëkk bi da koy dugal ci kàmb suul ko. Mhm. mu ànd xale bi di dox xale bi di dox ndeysaan ñu dem a dem yàgg ñu jàdd xale bi ne ko papa fu ñu jëm mu ne ko dañuy jaar yoon bi gën a gaaw xale bi di dox ànd ak Seydina Omar dox ba mu yàgg rek mu tolloo kàmb Seydina Omar ba max xale bi daanu ci biir kàmb ga di yuuxu Seydina Omar di suul doomam jum jur la de du doom jil doom doomam jum jur la ci géñoom muy suul xale bi xale bi di jooy ba déggatu ko xale bi faatu Seydina Omar ñibbisi moo tax ba l'islam li nga waxon sank mi lay génnee ci lëndëm gën nekkoon duggal leen ci lèr da ko xalaat di joy parce que lu dafa daw yaram nek lim ko jël di xagn lolu am solo dafa bokk ci site buñ ko wara dundulo ndaysan ñi xagn ko ko finalement muju di muju di dund dund go xam dund gu doy war la so xasse tourner rek ba xel mi yarar lam defoon da fay doy war motax tax di ci laaji ne ku ci am doom da ngay am gatch nga am complexe xam nga lolu sax mu ngi ci société ba légui léeg-léeg man ak sëñ Mala ñu <laughs> tooñante mhm. man la ah sëñ Mala soxna am na doom ñi la am ñu ne jigéen ñi ah, ah jigéen la xam nga loolu mu ngi des ba léegi jeexintal boobu waaw di leen kaa ñoo xam nga am na ñoo xam dañu naan xanaa li nga doon ay mbaxal nga doon lekk ak yooyu noonu ma ngoog ma ngoog ma ngoog <laughs> ah? ma ngoog jigéen sax xanaa xamoo ne euh, dogguma la yaa oustaz mhm. waaye boo xool kilifa yi ñu ëpp ci ñoom jigéen lañ tawloo wallaay kilifa yi ñu ëpp ñoom jigéen ñi te yàlla yi nag wax dëgg yàlla yahabu li man yasaawu inaasa wa yahabu li man yasaaw du sukur wallaay ndeysaan ah kon maanaa am doom moom nit ki da ngay sabablu rek waaye jàppal ne lu la sa borom jox loolu moo gën ci yow wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan ndax ni ko waxee léegi allah yaalamu man xalaqa wa huwa latiful xabir wallaay ndeysaan nit ki nag comme xamul ki ko sàkk moo xam lépp bu dee nit te bëgg def yëfi nit. Mhm. faaw nangul dogal yi mhm. ki nga xam ne moo ko sàkk. wallaahi ndeysaan <laughs> wallaahi ndeysaan wallaahi ndeysaan loolu loolu lu am solo la. yàlla xam na ko. gis nga mhm. moo tax tabaarakallaahu nangu dogal dafa am solo. inal xuróoba min xadaa ilaahi laysa bi mumkin ajal. sëñ bi nee na daw ndogalu yàlla kenn mënu ko. kon tàllal sa loxo dëkk rek loolu yàlla defal nga xam ne loolu la. te gis nga mbaax dëkkul fenn. xëy na mën nga yor doom bu góor jàpp ne. sa doom bu góor bi li dox sa àdduna la nekk fekk contraire ba la. parce que bëri na fi waajur yoo xam jigéen na leen dimbale. Ah, tey société bii ñu nekk dund nii bëri na lu fi lu fi baax yoo xam jigéen ñee ko baaxal. moo tax sëñ ba doon wax euh, waykatu arab ba doon wax rabbul banaat. waaw jar leen seen doomi jigéen ndax ñoom ñooy yiw yi gën àdduna. waaw moo tax sang bi sallallahu alayhi wasallam doon wax ci benn xadis naan ku ci yàlla wërsëgal ñetti doom yu jigéen nga yar leen yar yu rafet yow amuloo sax fay lu dugg aljanna rek la. <laughs> dëgg la macha allah. dëgg la. wallaay de sax macha allah. loolu am na solo. waaw. Euh, xam naa sax balaa balaa Oustaz ñëw ci loolu. Hmm. Euh, ndax dafa dafa dafa dafa entamé point bu am solo. Hmm. Euh, te ku ko déglu dinga xam ne. Hmm. doon jigéen. mën nañu wax ne mooy matériel bi gën a riis ci àddina mhm. wala boobu bokk na ci mhm. na wax naa leen léegi mhm. ci niñ ko jàppe woon bu mosaana feeñ jamono ak niñ ko daan jëlee waaye soxna roqee dafa dafa triste lool ci ñu xam ne nit daana doon soxna si baayam baayam bàyyi ko fi mu dond alal ja dondaale soxna si loolu lu waar la لول القران كو تيغي الجيجين ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا لول امون نافي نيت فاتو بايم فاتو مو دوندو مو دوندو مو دوندو سخنا الله يندي سن دوندالي ليبم الله يندي سن loolu daf daan am kon hmm. mën nañ ne bu buñ ko gisatul lislaam moo ko moo moo ko teggil hmm. jigéen uh-huh. waaye li am solo dogguma la sax mm-hmm. am na ci bu na a compliqué boobu mm-hmm. gën a doy waar mm-hmm. comme ni mu ko waxee ni saxee lu nu la wéree léeg-léeg daa roqee nit day am ñaari soxna yàlla dogal mu génn àdduna doom yi war a doon soxna xam nu ñuy def doomi aaw bi mooy dem doon ni ñaareel papaam. ñaareel papa bi dem doom bu góor dem ñëw doon ni. doomi aaw bi aaw bi ñu téye ko xam nga lu ñu doon layee. Mm-hmm. mooy dañuy bañ njaboot tasaar dañuy bañ fi génn seen kër. Ah, te seen jabar yi bàyyi lañ noonu la demee. Mm-hmm. jigéen it dañ ko daan jaay jaay. Mm-hmm. jaay ci prix prix yomb. waaw di ko loué ni ngay loué oto. téléphone wala wala yére wala mbaxana wala dal dañ ko daan def ba jaay di ko luyee. waaw nga yor ay ay rakk yu jigéen wala ay doomu yu jigéen. di leen ni ñuy luyee matériel. loolu alquran ko alquran ko fi jëlee. ndax bu ñu demee dinañ gis mu naan wala tukrihu fatayatikum ala bixaay. in aradna tahassunan litabdahu arad alhayat adunya dunia. waaye waman yukrihinna fa inna allah min baadi ikrahinna gafuran rahiman. kon jigéen mm-hmm. wallaahi mën dafay lislaam wallaahi ndeysaan bi ay wàccee ne ah ko daan def nanga ko bàyyi tey jëm li tàmbalee tey na jeex bu ko kenn defati mm-hmm. nit nag bu fekkee jigéen nag bu fekkee dañ ko daan luwee mm-hmm. nit ñi luwee fas wala oto te kenn du laaj luñ koy doyee boo luwee muy jigéen ju am doole nga di ko liggéey loo guddig bëccëg nag te du sañ bañ waaw du sañ bañ bu dee ku gaa yi ku gaa yi soxla la gaa yi luwee ko. ñu mhm. koy dem jëfandikoo moom ni gaa yi jëfandikoo ak yi ñu luwee rek. Mhm. ya cay xew après nag. ñoom seen yoon nekku ca. Mhm. bu amee doom muy jigéen ñu gas suul. bu dee leneen la itam ñu liggéey loo ko. waaw non non non lii def fi lislaam fekkoon. waaye dañ dañ leen daan maye maye. maanaam oustaz yo téeméer wala ñaar téeméer. wala 1000 francs may ma ko. bu ma ko mayee maa ko moom. Mm-hmm. jigéen noonu lañ ko daan def dañ ko daan maye. Mm-hmm. dañ ko daan maye. Mm-hmm. nga xam ne léegi bu ñu la ko mayee bu ñu la ni ngay moomee xaalis bi bu la ko mayee. la mayee jigéen noonu nga koy moomee. <laughs> waaw may lewe. non ma mayee jigéen ji non non noonu la may lewe. waaye itam daawut moom dara. waaw. bu dee sa soxna jabar jabar lañ ko mën a tuddee ndax jamono ji mën nañu wax soxna waaye booba ndéem noonu lañ leen jàppe woon mhm. baatu soxna moom rafet gi mu rafet moom lu leen mën leen ko askale ci jamono boobu ndax mhm. yii ñu leen daan def mhm. nga xam ne ku ci mos a am jabar lu mu am yaa ko moom bu dee sa doom noonu bu dee sa jarbaat noonu ñoom ñëpp ni nga leen yilifee noonu nga yilifee seen lépp seen lépp yaa ko moom waaye oustaz jigéen daawuñ ko limaale mukk ci li ñuy doon dëgg la daawuñ ko ci limaale de. Mhm. dañ koy boole ca la ñuy doon moom bu matériel bi teewee moom ñu naan moo war a am di déedéet moom day bokk ci matériel matériel lay doon moom nga xam ne bu ñuy séddale dañ koy séddale wale moom <laughs> waaw waaw kon soxna Roqee mhm. liñ ci mën a wax lu bari la waaye mhm. alquran yëpp moo leen ko teggil li rijaali nasibun mi maktasabu wa li nisaai nasibun mi maktasab na kon ñu waaw kay kon nag euh, moom moom dal, tubaarkàlla daal ñu lay delloo kàddu gi ba kàddu gi waaw. daa mel ni suñu borom moom moo nu bëggal boppam. walaay ndeysaan moo nu cëralal boppam. moo nu dimbalee boppam. lëndëm gi moom maanaam sax ni ko doon xalaatee. ni gënoon naa kurs. noonu gënoon na kurus. ndax ñu ngi naan am ay xeet yoo xamante sax dañ daan jël carnat carnat gémmiñ bu jigéen. Mhm. ndax jigéen amul woon droit à la parole. Mhm. amul lu muy décider. Mhm. amul lu muy wax. dëgg la. nee am na ñeneen ñoo xam ne dañ daan rangale ñu toog mm-hmm. seen tànk rek a daan feeñ koo ci bëgg a yow bëti mm-hmm. ba seen bëti woo mm-hmm. nga ñëw xool xool bu la ci neex rek nga daal jël yow wallaahi ah, wallaahi ndeysaan lislaam lañ dimbale suufe woon na te moo tax jigéen war a xam boppam jigéen war a xam moom mooy kan xam nag lan la ko lislaam defal xam na xam lan la ko lan la ko suñu borom defal dëgg la dëgg la ñu ngi bëgg a fa ñu fa ñu yóbbu woon. ñu ngi koy dundaal dina feeñ ca kanam. waaye waaye foofu da daan danañ fa ñëw. Mm-hmm. waaye ndéem islam moo ñu délibéré. Mm-hmm. ndéem sunu borom moo dagg mu mm-hmm. mu ko mu dagg. la ñu allah ma andi la waaye moo leen moo leen moo leen moo <laughs> <laughs> da ngay da foofu. Mhm, xam mhm. lan mooy taxawaayu jigéen allah la mhm. dëgg la daal ñu doon doon dañoo bokkoon ci dafa. ko wax wax ci am solo. Euh. tey bi lislaam dikkee dafa tenir benn discours boo xamante ni. benn discours war bu ci yemu day doy jigéen xam mooy kan. ndax dafa ñëw boole ko ci biir foo xam nañ ko faa génn

te na ko jur fonk wala julli islam dafa xàq boo ko yaree na nga ko jàngal moo tax ci hadis bu miin xale yi daara ji miin ko lool mm-hmm. Mm-hmm. talabul ilmi faridatun mm-hmm. taamim la dëgg la généralisé noonu sàkk xam-xam war nañ dëgg julli bëgg moo xam ne dafa am ñu ngeen génn noo bëgg mu doon ko li tax mu tudd képp ku di jullit ju góor mbaa ngay jigéen mm. sàkku ji xam-xam mm. ne nañ dem nañ dem sàkku ji xam mooy nañu jàng non seulement nañu jàng waaye mu joxaal leen ne nañ leen di wodd kiswatu hunna mooy seen koddaay ku ci juróti doom na ko jàngal na ko yar na ko dundal jox ko xaq ci ne nañ ko dundal non seulement nañ ko dundal ba tey mu leen nañ jox ndi ndigal nañ ko nañ nañu sàmm xale bi ba mu màgg ñu teg ko ci loxo yu leer maanaam bu ñu demee ci droit islamique dafay wax ne te jigéen la gën a fiir sax ci góor xam nga su fekkee tey sëy dafa tas wala waajur dafa génn àdduna lislaam sart yi mu teg ci kaw jigéen tegu ko ci kaw góor daf ne malam yi doomu góor yi doomu jigéen yi mu am moo leen war a dundal leen dundal ba kerek mu leen teg ci loxo mooy kerek mu leen di may borom kër borom kër ba ànd ak moom wala lépp luy permettre ànd ak nekk ci moom wala la ko tey def jóge ci borom kër bu dee xale bu góor daf ne na ko na ko yor bis bu dee ba monsieur tàqu nag moom kon gis nga ni mu bàyyee xel jigéen foofu ak xàq yi mu ko jox moo tax lislaam dafa dindiwaat jigéen bañ ko xañee ci miraas mu ne bis ni ki tey bu mbokkam génne àdduna magam wala rakkam wala baayam na bokk ci ñi doon mu ne na ngeen ko daan jënd doon def jabar bis ni ki tey na loolu dakk ku ci soxlaati jigéen na nga ko can jox alal joo moo ko moom yemu ci na can de na nga dàq na d'accord ci li nga koy may ndax d'accord ci wala d'accordu ci su ci d'accord dañ ko arrêté de yonentu sallallahu alayhi wasallam benn jànq ñëw na ci moom ne ko yaa rasulallahi man sam papa dafa maa maye te bëgguma ko mu ne ko bu la neexee nga arrêté sëy bi mën ne ko garaaw bàyyi ma jàdd dama bëggoon laaj hal lanaa minal amri shay dama bëggoon xam ndax ñun am nañ droit wala déet lislaam dikk ne bis ni ki tey dee la ko laaj xalaatam boo ko bëggee dugal dara na na na wax ba d'accord nga doole ko ci dugal bu génnee àdduna bu nit génnee àdduna mooy boroom këram na doom xam nga foofu sax am na ségrégation bu ci lislaam def bu ñu xam nga bu lislaam attee ne buñ demee bay bay donn góor na am ñaar jigéen benn xam nga lu war a loolu xam nga sëñ Mala mii bu fekkee ne yàlla laa xawla wala xuwata dafa yor rakk yàlla dogal lislaam jox ko 10 000 jox rakkam 5000 sëñ Mala rakkam bu jigéen bi mu ko jox 5000 sëñ Mala ko war dundalaat moo ko war a oddal moo ko war a def ci 10 000 yooyu mu am ci lay joxaat lekk xale bi ci la koy wutal fu mu dëkkee ci la koy dundalaat ak yëppam léegi nag comme yaa ko war a gérer moo tax ñu jox la lu ëpp moom 5000 am ba lu ci def defu ci dara la ndax li nga ko jox moo jëppale moo tax lislaam valeur yooyu la leen joxaat lañ leen xañoon lépp lislaam joxaat leen ko wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi day wér wallaahi mhm. Mhm. <laughs> wallaay ndeysaan lu ci am solo la. te te lii ma ëpp naa soppe moom ndax waaye ni ko ni ko wax yaa soos rek. te mooy li soxna wax lislaam moom wax dëgg yàlla. diine la joo xam ne ku ci nekk lay sa xàq daf la ko jox ba mat sëkk wallaahi ndeysaan dañoo nekk nag ci jamono joo xam ne mm-hmm. euh, jigéen ñi dañoo topp mm-hmm. ay royukaay yoo xam ne duñ seen ay référence mm-hmm. ñu ëpp ci ñoom loolu leen yóbbu ndax ñu ëpp ci jigéen ñi léegi tubaab lañu jël comme ay ay lu tubaab def ñu ëpp ci jigéen ñi dañ koy def moo xam ci wàllu sol la moo xam ci wàllu mm-hmm. waxin la mm-hmm. moo xam ci wàllu ay jikko la mm-hmm. façon de démarche ni ñuy doxee muamalaat yi muy jëflante yi ñu jëflante ci mbiir yëpp yëpp daanaka ñu ëpp ci jigéen ñi maanaam day mel ne tubaab yi lañ ci jël ay référence te amoon na ñoo xam ne ñoo gën a jekk ci ñoom ci ñu roy leen ndax yàlla ba mu waxee ci alxuraan ne xam na fii buyutikunna ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى xoolal lam ci teg wa atina zaka wa atixna allaha wa rasulahu innama yuridu llahu li yudhiba ankum rrijza ahla albayti wa yutahirakum tathira man dama daan faral di wax bu yàgg naan ahla albayti wa yutahirakum tathira googu ci jamono ji damay wax ne mooy këri diine yi walaay walaay walaay wa demee kër Seydi Hadji Malick ku askanoo foofa. Mhm. dugg nga fi dugg nga ci mhm. wax ji. Mhm. ndax royukaay nga war a doon. wallaahi ndeysaan sët ba ca njëkk. ba ki juddu tey ci sa si yi. kenn ku nekk ci ñoom di jigéen. royukaay nga war a doon ci société bi. dëgg boo demee ci laayeen yi. noonu. nga dem ci xaadir yi. noonu. nga dem ci ñaseen yi. noonu ku ci nekk ci kër yi ak ci kër yi diine yooyu soxna Roqe. njaboot ga fa bàyyi ko di jigéen. ay tànneef la ñu war a doon ci société bi. dëgg la. Mhm. ndax seeni maam la ñu gëm ñoom lañu ñu topp. Mhm. ñoom la ñuy yëkkat suñuy addiya di leen ko jox. dëgg mhm. ñoom ñoo ñuy digal ñuy jëf. ci ndigalul yàlla. ak yonent bi di ñu tere ci ndigalul yàlla ak yonent bi ñuy bàyyi. kon ñoom mën naa ne bu yàlla waxee ne ahlal bayti wa yutahhirukum tathira man da man dam leen cee dugal ñun. ci suñu jamono ji bu ma ko doon ko doon firee noonu. nga ñëw ci njabootu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul noonu. ku fay jigéen rek. Mm-hmm. Mm-hmm. royukaay la war a doon. Mm-hmm. ba ci sët yi ba ci fii ma koy waxee ci ki ci ki ci mujj juddu tey jii. ñoom ñëpp ay tànneef la war a doon. kon ñooñu. melo yi nga xam ne moom la ñuy xaar ci jigéen. bu nekkee ci ñoom. société bi dama leen di woo di leen soññ ci ñu xool ñooñu roy leen. dëgg ñooy seen royuwaay. dëgg la. Euh, bi bu waxee di leen tànnal seeni doom. wayjur yu baax. dëgg la ñeent fukki at yu bëri taxul muy wax. dëgg ci jublu mooy. Mhm. nit ki xam ne. Mhm. yaay des koy tànnal doom. dëgg mhm. des koy tànnal yaay. dëgg la laa bëgg a wax du ko fekk ci mbedd mi rek. nga jël jël ko def ko muy sa wéyjuru doom. bu ëllëgee day mën ngaa jël loo xam ne. loxo mën naa dem gémmi. kon mm-hmm. dëgg la yooyu yëpp mm-hmm. li tax mu bañ ñoo dal moy mm-hmm. dañuy roy ñi ñu wara roy deug la te moytu ñi nga xam ne jëruñoo jëruñoo roy kon bu yalla waxe lolu ci alxuraan ah son roqee la ma taxam deug la ndax bu leen genn seen genn génn seen kër ya, toog leen góor ñu leen di leen jox genn lek ak a naan ah? di leen wodd di leen solo ay yére heure bu ngeen leen soxla sax bu ngeen soxla ci bu ngeen gisee ak ñom deug la ah? am na sax ci fuqahaa yi ñu wax ne bu dee ku góor ki man na ko soxna si sax warul togg dañ koo war a wutal ku koy toggal dëgg la wallaahi ndeysaan dañ ko wutal ku koy toggal mhm. toilette bi nga xam ne mooy toilette publique sax waru caa dem dañ ko war a mhm. wutal toilette intérieure mhm. mu nekk ca ngir sàmm ko ngir sàmm ko ngir sàmm ko waaw ah, ndax nit ñaari am na loolu bu ko gisul ci biir kër gi bu ko gisee ci mbedd mi rek bu pas-pasam dëgërul rek wallaahi na koo yób mën na mën na mën yóbbee yóbbee musiba wallaahi askinohunna hmm? hmm, hmm. a dëkkal nag loolu nag moom xam naa Mouhamed mi ci réseau bi ak sëñ Mouhamed Lamine ñoom xam naa ne ñoom moom oustaz boo paree da ngay wax ak ñoom rek <laughs> wala ñoom am na nu ñu mel daal. ah am Mouhamed dama foog fekk moom tubaarkaal. waaw waaw waaw waaw soo doxee kon daal xam naa ñu kii foofu ba ba ba ba kàddu gi ñëwaat rek incha allah rabbi. macha allah sëñ sëñ Malaka waaw macha allah. ndax ndax soo xoolee islam amuñu fayam. soxna yi amuñu amuñu fayam. ndax dayo bi mu ñu bi mu ñu bi mu ñu defal. kawe na lool kawe na mm-hmm. lool. Mm-hmm. waaye comme ni mu ko waxee. Mm-hmm. ni que dañoo war a am ay royukaay. dañoo war a am ay référence ndax gannaaw ba ñu suñu lislaam di délibéré. génne ñu ci mbuumu jaam boobu wax nañu nan la ñuy aw. nañ toog ci biir kër yi. xottil ñu mbubb bi nga xamante ne moom la ñu war a sol. nañu bu ngeen solee lii di ngeen mucc. ne mu muur leen seen juróom-ñaari cër. na seen xar kanam di feeñ rek ak seeni i tekki loxo. kon boobu suñu borom bëgg nañu mucc. bëgg nañu protéger. ñun ñu ko jëfee rek. Hmm. defe naa dinañ dinañ dinañ dinañ am tawféex. waaye ni mu ko waxee ñu gis ni suñu doxin dafa changé. Hmm. suñu melokaan dafa changé. Hmm. maanaam xamatuñu fu ñuy teg suñu tànk. mën nañ ne ni que amatuñu repère. ñu gis ni daal valeur tamit. ñu wàññeeku. kon suñu méngalee. Euh, jigéen ñi nga xamante ne que ba lislaam bi ñëwee nga xam ne ñoom liggéey nañu fi liggéey bu am solo. Mm-hmm. ñu xool léegi nag société bi nag fi nu toll nii oustaz. Mm-hmm. nga gis ni ni génération bi mel ni doxale bi mel mm-hmm. sànq yaa ngi dugg fu am solo ne. jigéen dañ koo war a yar. da nga ko war a dëkk ko war a dundal. da ko war a sàmm da ko war a jàngal. gis ne jamono ji ñu toll. soo xoolee yar amatul. parce que manque de valeur boobu nga xamante ne moom moo am. nit ñi xamatu amatuñu repère amatuñu fu ñuy teg seen tànk. defe naa ñàkk yar bi nga xamante ne parents yi waroon nañ ko yar waroon nañ ko ñàkk seen njaboot rawatina nag njaboot gu jigéen gi dama gis ni loolu moo manqué kon oustaz pour njëkkante ak wax ji rek ak waxtu bi rek dañuy bëgg nga dugg foofu ñu méngale hmm. génération bi tey hmm. ni mu ni mu ni mu ni nii hmm. ak ak lan li nga xamante ne lislaam loolu la ñu sant bisimilah tabaarakallahu li ñu ko li ñu yóbbu lépp ci situation yi jënd mooy ñàkk royukaay dama lay nettali benn femme boo xamante américaine la woon Margaret Thatcher mm-hmm. wala Mor Loom mm-hmm. ku mu doon ci ñoom ñaar kii dañ ko tuddee femme d'affaires li nga tuddee mm-hmm. yàlla dafa dogal Margaret bi ñuy bi mu nemee benn doom bu jigéen la am doom bu jigéen dafa nekkoon wax ju doy waar dafa ne man sama yaay addunaam lu bëri def ci sànk ndax ñu ko tuddee woon femme d'affaires mu ne man fi may jàngee luy boo demee Google di nga ko gis mu ne man fi may jàngee xale yi ma fa bokkandoo yëpp ñi leen di jàngal xàmmee nañ seen i waajur mu des sama yaay te li ma ko yóbbee loolu sama yaay tax na loolu ci lay dund ba man jangali kat xamuñ sama bop oh. sama yaay ah. mu ne bi ma demee war ci neegu sëyit mun ma sama yaay parce que amul avis di waxtan ak man parce que yi mu géré daf ko upp doole ba finalement tout temps waxtan mo do ci dugg rek ndeysaan kenn nag mom yalla fa dogal dafa dem bay genn aduna bind not baye fi ba bineen baye fi mu ne man dañ ma lor ci sama aduna ah. ndax dañ ma tuddé wo dañ ma jàpp ne jigen la ko xam war naa def li gor ñi di def ah. légui nak pertinent bonheuru sëy oh. manam nekkuma jabar ba taxoon ma dund li ñu nit di dugg ci néegu sëy bi ko dund awma ko bonheuru doom it amatuma ko mhm. maa ngi nii perte sama àdduna ci yu kenn xamul mhm. moo tax ñàkk royukaay daf ñu yóbbu ci loolu moo tax dinaay wax sëñ bi li mu mhm. laal léegi mooy valeur yooyu l'islam jox jigéen mu dem a dem ba di ko perte te yëgut ko xam nga sëñ bi ñun ñu ngi dund ci ni nga ko waxee jamono bu doy waar parce que société bi ñu nekk di dund dañoo suufeel jigéen suufeel jigéen ba ngeen baal ma gis nga féministes yi ñoom ci ñi gën a suufeel jigéen ci lañ bokk xam nga ñun dem nañu ba léegi bu ñu amee benn matérialiste bu ñuy bu ñuy publier. Mhm. dañuy wut xale bu jigéen bu rafet ràng ko ko pour mën ko publier. Ah, exposé ko teg ko ci kanam. teg ko ci kanam. Ah, ah, xam nga loolu te loolu loolu loolu loolu dëgg ma oustaz mooy lambuloo jigéen. <laughs> lambuloo jigéen. waaw mooy lambuloo lambuloo ndax dañ koy dañ koy sol dañ koy melal ci melokaan noo xam ne. Mhm. dafay attire ñi koy xool. ci wàllu zahir. waaw nga xam ne. bu ñu bu bu ñu amee bu seen bakkan defaroo ci soxna sa rek mhm. mën naa am ñu mën a jëflante moom ca la la muy jaay loolu nag mooy mooy sànq jigéen ndax kon day mel ne yaa ngi wan société bi ne leen mhm. Mhm. comportement bi ma ko jox noonu la war a mel alors que ne tel n'est pas warul mel noonu warul mel noonu nam war a mel mooy li ma wax léegi toog ci biir kër yi bañ a génn ci mbedd mi di ko def ni ko ñu bari yi defee bu leen fa waxtu yu jullee fekkee dañu julli la leen war ci seen borom kër lépp ñu di ko def seen borom kër la ko war ci di ko def

xam nga li toog muy dox mm-hmm, mm-hmm. mooy yow Seyda Roqe dañ laa jox diw muy sa borom kër mm-hmm. demal toog këram moo lay dundal moo lay dëkkoo moo lay waddal ni nga ko waxee même fi nga ne sax daf ko war a sàmm ba du ku ne nga ku ne moo la war a gis imagine koo xam dañ laa géral sa dund li ngay sol dañ la ko yoral li ngay nekk dañ la ko yoral mais wuute nag nga xam dafa ci terrain bi di kër kër yooyu ñuy dellowaat fa ñàkk fu ñu roy nag moo ñu ko yóbbee ñàkk ku ñu roy moo ñu ko yóbbee te yi ñuy jox yin amoon na ko gën yi ñuy jox ni ni di ñu ko mm-hmm. gëmloo mm-hmm. bëgg ñu teg suñu loxo mm-hmm. yeen amul moko ko gën foofu waaye oustad dama gis ni ka xam nga njabot gi sank ma ngi la koy wax ni parents yi est ce que ñu ngi yar doom njabot gi ci diine ngir parce que fi amna amna ay soxna yu bari yo xamantene ne xamuñu sax la la leen diine wax ak la leen diine sant parce que dama japp ni bu ñu ñu diine sant kon duñu gëm sax li ñeneen ji di di wax di di ko ci jigen moy ñi nga xamne bëgguma sax tuddu seen tur mooy ñu melni féministe yi li nga xamantene ne lañuy wax ci jigéen ñi. Mhm. kon bu ñu jàngoon diina islam. Mhm. xam bu baax la nga gëdd bi nga xamante ne ak luñ suñu borom sant. Mhm. dinañ xam ne islaam daf noo defaral sax waaye yàq. dëgg la xamoon soxna Roqe foofu foofu noonu. saas nga baal ma waaye. féministes yooyu ngay wax. ak ñu mel ne ñoom ci réew mi. Eh, yàq gi ci ñoom la tàmbalee te yëguñ ko. mooy li oustaz di souligné léegi. mooy bu ñu demee bay jaay seen yenn produits yi. jigéen la ñuy pour seen marketing mën a jàll. Mm-hmm. te bu ñu defoon li ñu yàlla sant. Mm-hmm. loolu du am. Mm-hmm. kon dinañ leen jox ni nga koy xamee mooy. Seyda Roqe xool ko ni mel. tabaarakallah tey boo ko fekkoon këram. booy wut soxna. boo ne ko jàkk di nga xam ne kii tànneef na. waxuma nag moo gën ki ci mbedd mi mel mel melo bi nga xam ne wuute na ak melo yi mm-hmm. Mm-hmm. waaye ci bët rek boo doon tànn mm-hmm. sa xel bii lay gën a nangu que bi nga gis ci mbedd mi te loolu li ko waral mooy dafay am ñuy wax naan euh, jigéen dafa dafa war a am ay droit mooy dafa war a génn ci mbedd mi mel nu ko neex sol lu ko neex doxee nu ko neex di lekk lu ko neex waaye loolu ba mu amee. gis nañ lim ñu jural. Mm-hmm. Mm-hmm. gis nañ lim ñu mm-hmm. xam nga bu ñu bu ñu delloowaatee ci suñ njëlbeenu waxtaan. ci bu njëkk ko musaan am doom ju jigéen. suul. xëy na léegi moom sañuñ ko. waaye fi nit ne am na ñoo xam ne bu ñu amee doom ju jigéen. seen seen fit yëpp tàggoon ak ñoom. ndax gis nañ ñi jamono ji yàqoo. gis nañ ñi jamono ji yàqoo. yow da gis xale boo xam ne. fukki atam matagul. ñu solal ko col goo xam ne. da ngay maanaam li ngay njëkk a wax mooy lii su ko màggaalee. Mhm. moom balaa yàgg dana andi doom ci biir kër gi. Mhm. Mhm. te col googu day mel ne mooy neex way jur yi. moo koy neex col gu seere ci yaram. transparence lool. ci xale bu ndaw amagul fukki at laa wax. ngay dëkk ak sa papa ci biir kër gi. dëkk ak sa yaay ci biir kër gi. yéen booy seetaan télévision yi am na yenn xeetu way yi ñuy way mm-hmm. ñoom mën nañ koo tàmbali ba fa mm-hmm. wayoo tàmbali ba fa mu jeexee mm-hmm. di ko ànd ak waykat bi ci ni mu koy wax yow bàyyi ji nga toog di ko gis yaay ji toog di ko gis di ko dégg am na ci ñoo xam ne sax dañuy àgg ba dañ da ñoom ñoo lay tàcc di la encouragé mel ne so xale bi li muy def dafa baax dafa baax wala dafa dagan te fekk na mi ngi koppi ay jikko yoo bis bu màggalee moom bis dina ñëw yow miy way jigéen mbaa góor mën na laa yóbbee gàcc koo xamante nii ah dana dana dana xaw a doy waar dafa am benn boroom xam-xam bu wax ne mm-hmm. dafa misaal misaal mu xoromu mm-hmm. misaal mu xoromu mm-hmm. mu ne mu ne boo ñëwee di jënd ab xaal nga fekk xaal bi ñu opeere ko maanaam bu ñu lay jaay doo jënd bañ xar bañ xaragul ngay jënd mu ne lu tax nee na dafa ragal microbe bi dugg ca biir xal biir xaal boobu wala ngelaw lu bari li dugg ca biir xaal ba dugg ca biir xaal bi wala bët yu bari ya koy xool mhm. te am na ñoo xam ne bëgguñu bu ñuy jëfandikoo ñu leen gis mhm. kon buy jënd du jënd xaal boobu xaal bi muy jënd daal mooy ba nga xam ne kenn opéré la mhm. ko jëloon bu ko moom la ñuy jël jëfandikoo ko su ko defee nag Euh, danañ mën a xam ne hmm. la nee na buñ ko jëfandikoo luñ ca fekk hmm. neex na leen bu neexee baax na bu naqaree baax na hmm. loolu li mu bëgg message yaakaar naa ñëpp xam nañu kon daal euh, nañu xam ne jigéen moom xam naa waxtu bi moo ñu ko dund may. waaye kon danañ dugg ci soxna Khadija. si dañuy dinañ dugg foofu laa ah, bu ñu ci duggee daal xam naa dinañ ñëw ci. roy royteef. waaw dëgg-dëgg ni mu ko matee. dëgg la ndax moo ndax maanaam ni mu daan doxalee digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. dëgg la waaw mu mel ni sax waxtu bi moom mu ñu bëgg a xoj ndax xam naa ni waxtaan bi moo nu xaw a yóbbaale mm-hmm. waaye comme ni ñu leen ko waxee rek seen émission Siratou Salihate mm-hmm. day dikk tamit ci ay yéen ci thème ak seen jigéenu royukaay yi mm-hmm. te tey nag royukaay bis bi ñu jël nag mooy Seydatuna Xadija mooy Xadijatu bintu Xuwaylid mooy ki nga xamante ne moo nekkoon aawa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doonoon jigéen ju am teddaange ku amoon charismatique koo xamante ne ku amoon personnalité la koo xamante ne sax ba muy ànd ak yonente bi islaam bi ñëwagul waaye dafa amoon ay valeur morale. Mhm. xamoon fu muy teg tànkam nekkoon une riche commerçante à mhm. Mhm. doon jël ay góor ak ay jigéen ñu ñuy liggéey yoroon entreprise am. kon ci tënk bu gàtt rek. ñu oustaz nga wax ñu kan mooy Sayyidatuna Khadija. maanaam dañuy dugg sax directement ci diggante moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. comme te waxtu bi xoj xoj nañu ñu xam ay ngëneelam. ak taxawaay bi nga xamante ne noonu la noonu la ko taxaw taxawee. ngir soxna yi mën cee jàng. def ci. Eh, def ko royukaay incha allah. Mhm. fa tabaarakallaahu sayda Raqaya lañ nga sa yaay. Mhm. Moy kan. Khadija mhm. ju Raqaya di bul faté lolu. waaw mo ju Raqaya. Xamna nak nag na niñ koy budé arab mom Raqqa ala bi fathi fatxil qaaf. waaw bu ñun nak Raqqi lañ <laughs> wax ay. Turu ñoo wuté rek. tabaarakallaahu tuddu nga ko fam bu baax. Jigen gu noble. gis nga pour mu temps bi dafa xawa dafa ñu xawa xoj. li nga yàlla dafa dogal balaa mu jot ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam sëy na ñaari sëy mhm. sëyam bu mujj de jëkkëram dafa génn àdduna mhm. bi mu génne àdduna am na fay doom sax mhm. ñaari doom li suy a jàngale yàlla dogal bi jëkkëram génne àdduna nag am nay boroomi kër yu ko songu si waat waaye ku ñëw rek bu la nattee moom ni mu doon ak ni nga mel daf lay delloo bëggoon nañ ko mais lim soxla ci yow bokkut ak te gis nga tànn sa la dafa am solo. parce que lu mu lu mu rek mm-hmm. nawle daf caa baax. muy xaar nawleem ba yàlla dogal mu gis Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mm-hmm. ak li mm-hmm. ñu rawante ci at ni mu lool. moo tax yàlla ku bëri sekkare la. ba muy jot ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam. yonent sallallahu ñaar fukki at ak juróom la am. mu sëy fa ñaar fukki at ak juróom. yu teg ñaari weer ak juróom-ñetti fan wala ay quelques jours. kon gis nga kon diggante boobu dund na fa bo demé siira ben jour mësna di waxtané Khadija. Mhm. fek yalla dogal na mu genn aduna mhm. Aïssa radiyallahu anha fiiraange ak jigen ak morom japp ko ne ko yow li ngay tuddu Khadija bari na trop. yow yëguloo ne yàlla may na la ku ak sutuna Khadija. Mhm. déglu rek pour nga xam kan moy Khadija. bi ko Aïssa ne ko yalla may na la ku ak sutuna Khadija. mu ko ah ku wuuteeg yombul. dëgg la gën ko jafe la. ndax bu ma ñëpp weddee moo ma la de mu ne ko bu ma ñëpp weddee. bi ma nit ñi sofantalé ñak ma xañ sen alal moo ma joxoon alal di ma dimbale mu ne ko bàyyil xel ne li ma jot am ci doom yëpp ba mu des kenn ci moom la ko yàlla jëlee kon nga gis ne kon jox na ko ay valeurs yoo xamante ni yooyu dana tax du ko fàtte mukk benn jour jibril dafa ñëw ci yonent bi salaa sallam xadisul xursi ne ko boobu nee nañ xadija génn na àdduna ne ko am na kuy ñëw ci yow xadija la mu ngi àndaaleeg ñam mm-hmm. bu dikkee na ko bégal ne ko yàlla nga koy nuyu mm-hmm. malaaka yaa ngi koy nuyu te na nga ko bégal ne ko ëllëg la jëm xoolal jigéen ko am valeur gu toll noonu dema dema dem ba yàlla di la mm-hmm. yónni nuyoo te loolu bu wér la boo ko tappee di ko gis boo demee ci euh, Buxaari yi danga ko fa gis mu ne sit naa Xadija mii di kii di ñëw Xadija la mhm. bu ñëwee wax ak yow na nga ko wax ne ko Jibril la nuyu yàlla nga koy nuyu waa Mawlo ax laa koy nuyu ci lan daraja ju mu am mhm. ak valeur bu mu am mhm. muy nit ko am xelit nag xam nga li manqué waajur yu bëri te nga laaloon ko ci gannaaw te faaqidu shay laa yu'tihi nit lu mu amul du ko joxe mooy li ëpp ci waajur yi léeg-léeg dañuy fàtte seen rôle responsable di ngeen di leen war te moom ko amoon xel la li ko doon xaar daf ko xamoon Karak bi sang bi sallallahu alayhi wasallam jaaxle def nako wallahi jërul jaaxle yow do torox ci aduna mhm. ndax dama gis ci yow ay jukku yo xam kuko yor noobul ngay don tolu am lu bax ngay am mhm. ci teunk rek mon mhm. ko xamna ne yow fo tolu yaangi jokk ak mbokk bu nit jaaxle ñew ci yow lo am nga jokk ko gis na na yewit do fekk nit mukk mu ne ci gatch lu da nga xartu tank tu pour mu jokk ci yow do torox mukk da ngay jokk mbokk ta bu jafe-jafe amé nga yenu ko wax lu du deug Mm-hmm. yii critère ku ko yor lu baax rek ngay am moo tax bul tiit lu baax nga moo tax maam Cheikh Hadji Malick tënk ko ci benn baytu xadijatun mm-hmm. sakkanat bil xal bi xaailatan mm-hmm. lam yuxsika allahu fi daareeni laa takimi tabaarakallah jërëjëf oustaz andi nga lu am solo waaw andi nga lu am solo ndax ba jibril sonal ko nag boobu waxtu bu sax motagul mm-hmm. waaye mu ngi ko doon gis mu koy dikkal mm-hmm. mu ñëw ci Sayyidatuna Xadija naan ko zammilu ni mm-hmm. zammilu ni sàng ma sàng ma waaw bu ko defee sëñ Malak dañ lay bàyyi nga dugg ci yow tam nga andil ñu rek lan nga xam ci waaw boobu dañ dañ ciy sof li ci oustaz waxee rek comme waxtu yu dañoo xoj mooy ci bi ko wax yu gi fekkee ci xunt mi nga xam ne tiitaange ko fa jëlee foofu rek damay wax ne jigéen ñi buñ ci royee Xadija rek mhm. danañ xam ni ñuy dalale seen borom kër yi mhm. wala képp koo xam ne dafa jaaxle ñëw ci ñoom mhm. ndax liñ ci man a jànge mooy xel mu rafet ajuwul ci man jigéen laa wala man góor laa ndax loolu jëflante ndax bu yonent bi jaaxle ñëw ci kër lu mu wax bammilu nii muur leen ma wala mook sàng leen ma bañ ko ko defalee ba mu dal xoolal yonent bi xel mu rafet mu am nga xam ne moo gën a rafet ñëpp am xel sel gën leen a am xel waaye ba mu jaaxlee jigéen a ko dalal foofu dëgg la moom la sëñ Tuubaa di wax naan dakaaw xaq lil muntaqa faaxal xuqul waaw xel mu rafet mi yonente bi am moo gën a kawe xel ñépp seen xel yu rafet adhara maqulan badat minhu nuqul ba mu ñëwee soxna si li mu ko li mu ko wax soxna si da ko dal ne ko wallahi laa yuzika allah abada yàlla du la gàcceel mukk mooy lu ustaas wax yow yàlla du la gàcceel de ndax di nga jokk bokk mm-hmm. di nga berdeel gan mm-hmm. di nga fekk ku lot mm-hmm. nga dimbali ko nga gàdd ko waaye di nga fekk ku ñàkk itam nga dimbali ko lépp lu ay xew-xew di xew ci dëkk yi itam danga ci taxaw ci taxaw lépp lu nit yittewoo itam da nga ko ci jàppale kon yàlla du la gàcceel ci la woon ci la ci la ci la jóg ànd ak moom dem yóbbu ko ñu ànd ci waraxa nga xam ne boroom xam-xam la moom waaye xoolal loolu rek mooy dalal gi non seulement da ngay xool ni ñu ko dalalee ba noppi ànd ak moom ci borom xam-xam waaye nga xool it mm-hmm. jamono boobu yonent bi mm-hmm. mën nañoo wax ne euh, dara xew gutoon ci moom yore gutoon dara itam mm-hmm. bu dee aw tur amagu ko woon maanaam bayre ni ñu ko mën a waxee waaye ca mu fekkoon soxna sa mooy muy yaxantu commerce waaye nam daan dimbalee góor yi dëkk ba nga xam ne dañ daan ñëw mu leen jox marchandise ñuy dem di jaay di ñëw di mën am lu ñu faje seen soxla ba yonent bi ñëwee noonu la jëflante ak moom waaye itam gis nga ko bañ demee ba soxna si gis ci yonent bi ay jikko yu ko doy ci la sàkk ci moom mu denc kon foofu li mu fi bëgg wax rek mooy euh, xel mu rafet ajuwul ci ne man jigéen rek la ajuwul itam ne ci man góor laa kon soxna soxna soxna Roqee xam naa daal comme waxtu dañoo xoj. dañoo xoj. maanaam dañuy tënk rek na xam naa lii duuf ci nag bi yëpp xajul ci. xajul ci cin li. Euh, oustaz mi ma seqal jotaay bi moom. te daal maa di bokk ak di bokk ak moom di bokk ak waxtaan wi ndax ah. ndax ndax ndax noom moom jàmbaar la fi may daaneele sama kat daal ah. mooy benn dénkaane la boo xam dama koy dama koy dénk jigéen ñi mm-hmm. waaw moom ngeen baal ma rek bu ma ko waxtu yu maye mm-hmm. muy muy muy muy dénkaane bu am solo mm-hmm. jëm ci bépp soxna soo xam ne yaa ngi may seetaan mm-hmm. ndax jigéen a ko wax mm-hmm. daf ne man ab murit bu jigéen ab murit laa bu jigéen di sonn mm-hmm. di jéem a feri ij taxaw ne jonn xam naa ne Serigne Touba damaa defar damaa defal lu rëy loo xam ne nii lott na ay bàyyi ki ndey saa suma ba feri ij yi itam day di wéy nax lee ma xam nee na loolu du tee may jàng togg tey liggéey tey moytu jëw ak fen tey moytu wax ju man fi mu ne nii yaasin ba suuf xam naa ko jaawarto it bu yàgg mokkal naa ko mm-hmm. saa su ma nday yónnee ma dem tey gaawtu du ma ko xoltu wala ma yeexantu mm-hmm. daay root di wut lu baax di sàkkuy xam-xam mm-hmm. tey muuru tey nafar bu wér saay xam-xam saa su ma déggee génn nodd daa di jug bàyyi la may def du ma jaan nit ku ma mag ay taasu baa ay way yu neex ci sama xol déglu mbindum sëriñ bi moo ma leen gënal saa kàddu it kenn du ko dégg muy kawe mm-hmm. sëriñ bi man ci lii la may nawe mm-hmm. man duma seetaan lu ñu sib ngir yàlla xam naa ne topp ay ndigal mooy fulla mm-hmm. bu ëllëgee yomal xiyaam man bëgguma sama boroom di ma yey naan ma topp ma sawara man buy fees ci ay jigéen yitam man fasumaa def luy waral ma di ca jëm mboolem lu xew ci col wala dàll yitam daay laaj ba xam bëggug borom la door a am man duma sol yére yu yaraax di génn mhm. wala lu seere ci yaram day tànn mhm. man ku ma bëgg it damay xool ay jikkoom bu sellul ma muñ ko xaar ku sëñ bi mhm. ay ay kaddu yu am solo la yoo xam ne di message bi may lancé ci sama mbokki soxna yi di ñaan yàlla na yàlla jubal ñëpp gindi ñëpp teg leen ci yoonu siraatal mustaqim ndax ñoom ñooy suñuy trésor mm-hmm. wax dëgg yàlla ñoo nekk ci kër yi mm-hmm. di toppatoo njaboot gi mm-hmm. ah, ni ko alxuraan waxee rek li ku ilayha la ñoom loolu la ñoom ay ay ay mën naa ne ay ay résidence yu am solo lañ ku jaaxle sonn rek boo demee ñoom ñoo lay dalal kon yàlla yàlla doolu jàmm oustaz ñu ngi lay sant bu baax baax ci jataay bi ñu bokkoon wax dëgg am nañ ci mbégte di sant soxna Khadija di sant waa RIS ñoom tamit bu baax sëñ Mouhamed ak sëñ Amadou Amine mm-hmm. di leen ñaanal bu baax liggéey bi yàlla gën koo barkeel. jërë jërë jërë ngeen jëf. jërëjëf euh, sëñ euh, Maraka euh. kàddu yi am na solo loolu kon su ko defee waxtu bi dañoo xot rek waaye ñu tënk. Mm-hmm. ndax li sëñ Maraka wax ni que soxna Khadija dafa def lu am solo. Mm-hmm. ndax dafa xool ay valeur ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa moo tax mu gis ko ëmbal ko cofeel bu yaatu ba dox ko jaarale ko ci xaritam bu ñuy wax na fi Nafisa ngir mu jël ko soxna mm-hmm. waaye nag foofu lu ñu fay wax mooy soxna yi soxna Xadija sëyoon na ñaari sëy mm-hmm. ba daal tas nekk ci liggéeyam mm-hmm. waaye dañuy naan sànq dafa wax ni que ci góor dafa war a tànn soxna su muy takk waaye jigéen nit nag war na tànn kan mooy doon bàyyi doomam ndax it nag la sëñ Touba waxoon sëñ Abdourahmane di ko nettali ne ndakat di xaatu jigéen mooy topp borom kër waaye ba waaj a ñëwee ci sëñ Touba ne ko sama soxna si dafa wàcc liggéey waaye sant naa ko gërëm naa ko sëñ Touba da ne yow mii ku la gërëm yow mii ku la gërëm ba muy ñett yoon kon foofu day wax ni que nag borom kër bu ragal yàlla. Mm. dafa dafa dafa am solo. Mm. kon soxna Khady Diop foofu tamit doon na loo xamante ne soxna yi war nañ koo roy. Mm. yaay ji mu doon yaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax ba wax bi wàccee yonent bi tiit. yonent bi xalaatul kenn ku dul ku dul so Sayyidatuna Khadija daw ci moom mooy confidente am. di xaritam. dem ba ci moom. Khadija nag daal di taxawaay taxawaayu yaay takk ndiggam. daal di koy tagg. ne ko yaa Rasulullah yow doo kuy doo jommi ndax daal di koy limal nag jëf yu baax yooyu nga xamante ne moom la sëñ Malaka wax mm-hmm. ne ko da jokk mbokk mm-hmm. dangay ngay defal sa njaboot mm-hmm. dangay taxawal yoonu jub yaa ngi dimbali njëriñ yi yaa ngi taxawal dëgg kon yow suñu borom du la lor mukk kon foofu li li li sëñ Malka wax mooy soxna dafa war a jàng dalal borom këram mm-hmm. circonstance bu mu ñëwee. Mm-hmm. bu xar kanam ñëwee. Mm-hmm. war ngaa mën a détecté ne kii. am na ci lu mu ne nga war koo mën a dalal. ndax suñu borom dafa ne jigéen ñi góor ñi ci yéen la ñuy kon loolu nekk na loo xamante ne lu ñu war a xam la oustaz. dama lay bàyyi rek nga tàggoog mbokk daal di béy bu ko defee ñu tënk. te daal di tëj ndax waxtu bi xoj nañu ba pare. tabaarakallaahu ñu ngi bëgg bu baax a baax. di bokk yéen. surtout sëñ Mala ñu ngi kontaan bu baax a baax ci message yu am solo yooyu message yu technique yu dëggu yi nga xamante ni mu ngi koy jàllale ndax waxtu dafa cher que chey fi in lam toqta leneen xew moo tax tabaarakallaahu ñu ngi ciy kontaan baax soo daa roqiya ji soññaa daal jigéen ñi ñu dollee góorgóorlu ndax ku la gën daf laa gën référence ku la gën ci kaw suuf rek daf laa gën royukaay te bàyyi xel ne kat alxuraan nexoon na ne lu baax moom bu daggee lu baax la war a fekki kenn ku ci nekk na góorgóorlu topp sa borom kër sa kem kàttan te moytundoo nag yii ñuy gëmloo ci wàllu àdduna mm-hmm. adduna moom noo ci gën a nuuree rek mm-hmm. di sor yàlla mm-hmm. kon ñi ngi jégg lu baax tabaarakallaahu di ñaanal yàlla waa almuride tabaarakallaahu yàlla na yàlla def muy seen boo xam ne dem ba làmb adduna yëpp murid 24 TV tabaarakallaahu yàlla dem ba mu nekk seen boo xam adduna yëpp dañu ko seetaan yàlla mun na ko sañ na ko am na ko yàlla na yàlla defal leen ko ci barke weeru koor yi bu ñu demee ba del soo daal yàlla nañ fekk ba waajo tabaarakala muy jotaay boo xam ne daal ñëpp ci kontaan macha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf oustaz kon mbokk téléspectateur Mouride 24 TV dénkaane bi mooy soxna Khadija liggéey bu am solo bi nga xamante ne liggéey na ko doonoon soxna su jàppale borom këram soxna su taxawu boroom këram soxna su yiir borom këram njëkk a gëm yonente bi salallaahu alayhi wa sallam jël alalam confiance ak lépp jox ko ko jël jigéen jox ko kàddaanteem ci lislaam kon soxna yi nañu góorgóorluwaat takkaat laxasaay ndax soxna Khadija de liggéey bu sell boobu mu liggéey tey jii moom moo waral mu bokk ci jamono jamono yonente bi salallaahu alayhi wa sallam jigéen ji nga xamante ne moo gënoon ci communiqué euh, communauté yonente bi salallaahu alayhi wa sallam ci siècle boobu mu dundoon moom ak naa Mariama waaye mu ëlbatikuwaat bokk ci ñeenti soxna yi nga xamante ne ñoo gën ci àdduna yonente bi ne saydatuna Khadija sayyidatuna Mariama sayyidatuna Asiya dinañ ci ñëw ba ci Faatimata bintu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kon gis ngeen moom ñaari ngëneel yi mu am bokk na ci jigéen ñu gën ci communauté bokkaat ci ñeenti jigéen ñi waaye am doom joo xamante ne dafa bokk ci ñeenti jigéen ñi gën kon soxna yi nañ góorgóorluwaat takkaat laxasaay ndax référence ak royukaay yii nga xamante ne nag moom lañ fi andi suñu borom defu leen fi rek ñu mel ni comme ay m yi ñu teg waaye dafa fekk dañoo war a def suñu ay royukaay kon nañ góorgóorluwaat takkaat loxo saa yi gënuñoo baax kenn gënuñoo tedd kenn gënuñoo baax kenn gënuñoo xam kenn waaye suñu borom mënu cëlëree cër bi ñu taxaw fi fas yéene waxtaan ak yéen laabirante ak yéen waxante ak yéen sottante xalaat delloo buum sa booy boy ba xamaat ñun ñooy kan kon dinañ leen jox dig daje ci beneen numéro ci seen émission Siratu Saalihaat fii ci Mouride 24 TV dans l'univers de la Mouridiya jërë ngeen jëf asalaamualeykum wa rahmatulah. Hello.